sëñ bi Mamadou Sy Albert ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay Elisabeth. ngay analyste politique euh, di expert euh, consultant également euh, ñu waxtaanee ci lii di politique bi débat bi ñu nemmeeku tey passe d'arme bi am diggante opposition ak pouvoir nan nga ko jàngatee. waaw ñu ngi ñu ngi léewtu moom lu wax ni ñoom ñëpp. Euh, tey jii lu nekk seen xel mooy élection législative bu 31 juillet bi. Mhm. Euh, loolu le ku nekk mu ngi mu ngi bàkku surtout opposition bi mu ngi bàkku am na corps yu baax ci élection locale yi gagné nañu ville yu yu bëri. Mhm. donc ñoom ñu ngi préparé pour dem élection législative pour gën a am doole ci assemblée nationale euh, bi ñu demal. Mhm. bon pouvoir bi aussi ba léegi. bon nangul euh, que perte na ci local yi ñu ngi wane que fu ñu nekkoon démb foofu la ñu nekk ñoom tamit ñu ngi préparé élection législative bon léegi nag am na aussi yeneen débat euh, di parrainage bi muy ni classe politique bi amul consensus jubóowuñu mm-hmm. boo ci boole aussi dundu sénégalais yi ñëpp ñuy tiit que situation réew mi ak àdduna bi ni mu demee nii yokkate euh, euh, jiw yi ceeb transport ak loolu dañu ragal mhm. mu gën a diis mais ba léegi quand amuñu solution ci euh, wàllum dundin bi boo ci boolee affaire Casamance bon loolu yëpp li muy wane entre ba tey ji daal que c'est situation Sénégal dafa dafa métti <laughs> lool lool lool ku nekk nag mu ngi préparé mu ngi yi kon daal bu ma la déggee contexte bee waral ñu personnaliser débat bi mais contenu bi tey noo ko jàngatee ndax am na solo contenu moom des na des na des na des na lool parce que euh, élection aussi am na lu mu laaj mën nañu préparer loo gaam kenn mënul tere acteur politique nga préparer élection bi di ñëw wante aussi euh, nit ñi euh, lu ñuy xaar ci classe politique gisuñu ko hmm. parrainage bi mu euh, ñu ngi koy coow depuis deux mille dix neuf ba tey lépp deux ans trois ans ñu ngi coow amul solution. Mm. donc loolu problème de euh, bu rëy la ci suñu système électoral. Mm. boo ci yokkee aussi dundinu askan bi. Mm-hmm. nit ñi dañu bëgg xam est-ce gouvernement bi dina taxawal askan bi. Euh, ci au moins au ci wàllu de de ñoo ngi wax ne xiif dina am boo mayul euh, bennoo man dina ma doon euh, bokk naa ci ñi nga xam ne dina leen doon neex lool ñu dégg bennoo ci ay perspectives yi nga xam ne état nga koy waajal moo gën tontu yi. waaw fu mu nekk nii en lu ñu gis mooy que gouvernement bi dina dina dina dina wàññi dina wàññi ceeb diwlin. wante amul amul solution dëgg-dëgg amuñu solution bu ñu gisee situation Sénégal nu mu demee nii ñun suñu dund yëpp dafa dépendre ci extérieur ci extérieur bu crise bu rëy moo nar a am loolu kenn gisu solution bu ñu mën a am fii ci Sénégal loolu loolu moom benno Euh, amu ci benn benn amuñ amuñ benn solution. Mhm. boo boo ci yokkee aussi yeneen jafe-jafe yi nga xam ne mooy éducation bi santé bi ak yeneen secteurs yi ba léegi lu ñuy xaar ci gouvernement bi ni ñi gisuñu ko et soo moytul daal. dafay mel ni bennoo euh, bi ñu doon dégg euh, bi ñu doon dégg amatul doole boobu amatuñu réponse ci situation Sénégal li muy dund ni mhm. loolu mo moom euh, lu lu lu lu am la day war ne nekk gouvernement bi ci jafe-jafe bu rëy la la nekk nii tey euh, ñoo ngi dégg Yewwi Askan Wi ci wet wi di xamle ne kan euh, Khalifa Sall dina doon candidat ci législative yi ñu dëgmal tey lan nga jàpp ne moo waxal ñu def effet d'annonce boobu waaw politique la politique moo ko lal soo déggee ñoom ñu ne xalifa moo nar a nekk seen tête de liste ci législative bi bon dañuy delloo njukkal dañuy delloo dañuy delloo xalifa njukkal mhm. ndax Barthélémy tey jii bu ñu bu ñu bu ñu ko falee ci ndakaaru loolu taxawaay xalifa la dara ji bu mu am ci ci ndakaaru aussi ñoom xam nañ ne joué na mhm. rôle bu mag pour ñu mën a gañe ndakaar mais boo gisee aussi tax euh, yow askan am doole bi moo am ñoom xam na ni que ak jaar-jaaram xalifa am na lu mu indi. Mhm. am na lu mu leen xelal aussi. Mhm. Euh, donc doxalin yi euh, askan. def naa ñoom euh, xam nañ ni xalifa am na ci place dañ ko delloo njukkal pour def ko tête de liste. Mhm. bu dul delloo njukkal bi aussi xam na ni que fi ñu toll ni xalifa mënul bokk ci élection élection législative. législative waaw. waaw donc dañuy anticiper dañuy annoncer que dinañu xeex. dinañu xeex pour Khalifa am droit civil ak droit politique mën a jiite seen liste mën na participer ci élection yi euh, xamuñu nag ndax dina am wala du am mais euh, ah, fas nañu euh, yéene nañu xeex pour Khalifa am droit loolu loolu aussi annonce bu rëy la pour ñoom. kon mën nañoo mën nañoo jàngatee ci annonce googu leen nii ñoom dañoo ubbi fu mu nekk nii benn plan d'action bi nga xam ne dinañ ko doxal. Ah, lu wóor parce que bés bu ñu defee seen liste ñu ni xalifa mooy seen njiit loolu coow la. Hmm. Ah, euh, dina ñu déposé ci ministère de l' intérieur ministère de l' bu dàqee ne kii mënul nekk loolu euh, man na jur ay fitna mën na jur ay manifestation euh, dina polariser. Hmm. dina dina dina sax déstabiliser gouvernement bi. Hmm. parce que ñëpp xam nañ opposition bi ñëpp bu ñu mbooloo mais ki il faut mu bokk. Euh, loolu day change lu bëri lu bari ci ci euh, campagne électorale bi. Mhm. tey Benno Bokk Yaakaar dafa taxaw teem ngir dajalewaat euh, njabootam ndax foog nga ne loolu dina yomb si moom. du yomb du yomb. parce que mhm. coalition dina jafe dina jafe ba boo xoolee. tey jii ku waroon gën a jàppale président mooy APR mooy parti yi nga xam ne moom moo ko sos moom moo ko jiite. Mhm. wante soo gisee APR ni muy demee nii. Euh, amul unité seen booloo des na lool lool te lokk élection locale yi firnde na que euh, euh, APR nekkatuñu benn baat ànd am na gox yu bari di responsable yi ànd àndul mhm. te loolu APR su nekkul parti bu bu am doole mhm. defe naa benn mënul dem mënul dem PS amatul doole bi mu amoon mhm. ASP amatul doole bi mu amoon même président de la république ak kattan pour tey di jëlaat APR jiite ko dem xeex. Mhm. loolu aussi day day wàññi doole euh, Benno defe naa daal dina jafe wante nag bon su président APR ak président Benno euh, euh, su wootee ñu toog ñu waxtaan seen bi mhm. mën nañu am solution wante bu ñu toogul ñuy demee nii. comme ni ñuy organiser ay mission pour dem wax ak kii wax ak kële loolu du tax parti nekk euh, un grand un grand parti. ndax foogoo ne tey Benno lu ko dal lu ne Macky Sall la. ah Macky am na ci wàll. am na ci wàll parce que euh, bi mu faloo ba tey ji nangul euh, organiser parti am parti surtout nga nekk chef de l'État nga am sa parti te sa parti bi amul keneen ki nga xam ne wóolu nga fu mu jiitalal sa parti loolu Macky daf ko bañ euh, ku loolu moo indi coow bi mu am ci APR te loolu moo ko dab tey ji que APR tey ji amul kenn ki nga xam ne ci euh, taxaw na pour jiite APR jàppale président de la République loolu moom ci ci Macky la moom moo am responsable Benno naka noonu Benno aussi boo xoolee tey ji mënoo wax ne Benno kii moo ko jiite mhm. wala kii moo jàppale président la République du Moustapha Niass du du général PS du ay donc loolu day wàññi bu baax a baax euh, te président quand de euh, dëgg rek la ñuy wax président moo def erreur boobu. kon dafa fàtte daal ñi ko fal. ah de de de de ni muy ni muy doxalee. Mm. Euh, nguur soo nekkee président nga bëgg jiit ay kuréelu politique. Mm-hmm. mënul sotti. mënu mënul sot loolu choix bi mu def moo baaxul mhm. moom moo baaxul e soo gisee aussi defe naa wóolul bu baax ah parce que boo xoolee confiance bi mu amoon ci Ousmane Tanor Dieng man gisuma benn confiance ki mu ko am ci allié yi wala ci parti am hmm. et loolu aussi euh, moom moo tax soo amul confiance soo amul confiance lii mooy expliquer que euh, tey jii amul kenn amul benn parti bi nga xam ne taxaw na wetu Macky d'accord donc responsabilité locale am na ci am na ci quand ñu waxtaanee parti socialiste jeexaleeg moom sax euh, gis nañ ne euh, ñoo ngay rumandaat euh, mu mel ni maire dafay tàmbali si ñenn ñi di di di yéeg di yéeg ndax tey mën nañoo njottu parti socialiste fii ak ay fan yu néew ñu dégg ci ay coow ba mu jar sax tasaaroo. ah suñu moytul moom euh, lu ñu gis mooy que PS am na jafe-jafe yu rëy ah, euh, du ñu tax yi PS bi ñu xamoon ci Ousmane Tanor ah, amul amul amul tey ji hmm. ah, euh, am na direction c'est vrai que am na direction wante direction bi jubawuñu ay clan moo nekk ah ku nekk secrétaire général Aminata Ndiaye am na am na ñu ànd ak moom. Hmm. am na ñeneen ku mel ni sëñ Mbaye am na ñu ànd ak moom am na yeneen cadre aussi Euh, ñi nga xam ne ñu ngi préparé euh, local yi sax wane na que PS euh, tey tetu leen donc mm-hmm. loolu ay crise de leadership moo moo nekk ci PS et suñu moytul élection législative yi dinañu gën a gën tasaaru te aussi benn mënatu leen téye loolu aussi wax wax bu rëy la pour PS PS mënatul nekk ci gannaaw benno tant que tant que xamuñu Euh, tant que amuñu en tout cas relation bu baax ak affaire hmm. euh, euh, soo moytul dina dina am ay militants parti socialiste ñi nga xam ne dinañ demal seen bopp ci ci yi. Hmm. am na ñeneen aussi ñi nga xam ne soo moytul dinañu seet seen candidat pour présidentielle deux mille vingt quatre. loolu loolu coow loolu yëpp nag fii ak ci kanam dinañ ko ko gis. ñu suuf ko ci parti socialiste ñu lay jaajëfal bu baax a baax Mamadou Sy Albert. Merci bien, Elisa. Merci beaucoup.